salaamaaleykum mbokk Salam salaamaaleykum askan Salam salaamaaleykum yéen ñi nga qui nous da ngeen ñuy suivre un peu partout à travers le monde ci réseaux sociaux yi surtout ñen ñi nga xamné da ngeen ñuy suivre ci site Dak Euh tay ñi ngi ñëwaat encore pour am ben entretien ak un jeune euh bo ne vraiment c'est un jeune médinois en l'occurrence il s'appelle Pape Demba Soumaré mu am ben mouvement c'est un jeune très politique nous euh, convié pour nous wax un peu sur euh, la politique de la jeunesse et sur un peu un peu un peu plus particulièrement sur euh, la jeunesse face à la politique nos politiques. Euh, euh, Pape Demba salaamaaleykum. alaykoum, salam, monsieur Coly. dama bëggoon nga defal ma présentation bi succincte su ma la laajoon wala ki nit laajoon la Pape Demba Soumaré kan la. lan ngay wax Pape Demba Soumaré benn ndaw la bu juddoo Medina yaro Medina jàngee Medina am lu mu am lepp ci Medina. donc Médinois en fait. waaw un Médinois 100% et fier de l'être. et fier de l'être oui. mën nga wax un peu sa que jaar cursus un peu scolaire cursus un peu politique. Ouais. qu'est-ce que tu en diras. waaw def nañu ay études élémentaires. am suñu certificat. ba ñu amee suñu certificat ñu dem CS Médine. am fa suñu BFEM après ñu dem lycée Blaise Diagne am fa suñu bac S2 après ñu dem à l'université nekkoon à la faculté des sciences économiques et de gestion FASEC am fa suñu master 2 ba instant bi ñu ngi def suñu cycle doctoral parce que bëgg nañu dégg le fameux docteur ah le fameux docteur en gestion waaw ba léegi daal ñu ngi jàng. je je vois je vois un mhm. jeune déterminé ambitieux. oui studieux. waaw ah, studieux parce que boo boo juddoo ci benn famille boo xam ni santuñu la dara lu dul jàng jàng rek moo lay war jàng la war waaw ah, jàng rek moo lay war mais vrai que jeunesse moom parfois day am ay soubassement mais bon ñu ngi doon jàng daal waaw ah, mais fan nga jëlee virusu politique bi virusu politique bi nag moom dama ko mën naa wax ni dama ko dama ko màggaale parce que je me rappelle ba may def première village diagne oui. si laay am 17 ans mu tombé loon élection présidentielle 2007 mu amoon Ben Ben conseil spécial du président frère le conseil spécial du président s'appelait Hassan Ba. son jumeau Ousseynou Ba de suñu koñ. ok Medina. oui léegi souvent da doon ñëw foofu man maa ko daan attaayaal. ok léegi nag da daan indi poster di mo waxu Abdoulaye Wade non le virus bi duggé ba à l'âge de 18 ans c'est lañu c'est lañu organiser notre premier meeting politique. ok léegi virus bi topp ñu ñu faawoon Abdoulaye Wade ba ba li yëpp am daal.

je suis un non, non, je, ne suis plus carimiste parce que. Et qu'est-ce qui a, quest changé Non, boy, boy, boy un leader. à tes côtés. il n'est pas là Karim oui peut-être c'est d'ordre politique on ne sait pas mais bon il y a des choses qui ne se disent pas.

mën nañu nekk dans la dans la coalition Benno Bokk Yaakaar. oui au niveau national. Ah. gëm le président Macky Sall. mais au niveau local ñu gis le maire lu muy def ñu ànd ak moom te bëri na fi. donc yow yow maire bi maire bi maire bi maire bi moo la charmé. exactement. sa politique moo la charmé sa politique m'a la charmé. mais les gens qui qui yi nga xam ne dañuy sànni euh, sa politique sur beaucoup d'aspects. aspects lan nga leen dans ce cas. Non, mais ils sont dans leur rôle xam nga xam nga xam pouvoir local boo ko opposants non noonu rek la ñu mën def surtout pouvoir local boo xam parce que 2014. Mhm. je me rappelle ba ma ànd de campagne dafa amoon de nous waxante woon ak waa Médinois muy Médina ko A ko B. sur sur sur beaucoup de plans sur le plan de l'éducation sur le plan de la santé sur le plan du sport sur le plan social sur le plan cadre de vie.

mais tey mais tay mais tay mais tay sur le plan de l'éducation. oui bamo bu muy ñew ba muy ñew Medina, danaka medina amatul woon jardin d'enfants oui xawma nak xam nga ko wala amatul woon jardin d'enfants enfant ba mu loolu la constaté il a construit deux grands jardins. oui à savoir keur Biram Saasum et keur mam dabax ba mu ñëwee enseignement bi dafa waccion trop à la Medina. Medina, mm. da nga naan gis moins de 50% la doon am au certificat de fin d'études. Mais nous avons relevé, relever le défi, de booster les enseignants de CM2, de les honorer parfois, pour au moins nous les, les élèves des cours du soir, pour relever le niveau. Bataille, pas moins d'une année, en 2017, une jeune médinoise, CM2, à l'école Mbaye elle a fait le concours général mhm. te Médina a na concours général sur le plan de l'IEF Dakar Plateau moo a fi Dougal, te euh, c'est un résultat tangible boo xam ne mën nañ ci mais qu'est-ce que tu diras les gens qui disent que nous noo mën expliquer nga ne dafa bëgg enseignement mu toj école. les gens qui disent comment tu peux l'expliquer mu toj ay école alors que mom dafa leuru voilà c'est un paradoxe. mais xam nga tay xam nga tay pour nga defar. pour nga oui. pour nga defar pour man. il y' a une école par exemple du toj ba léegi defaruñu ko. ban ci moy école Medina 2. oui Medina 2 waaw mais xam nga xam nga tay tey li li am solo. moy tey Médina 2 bi ñuy wax budget budget budget budget année bi ñu ñu def mais mom la ñu bëgg tawax mais Medina 2 bi ñu ko tay yàgg na de. yàgg na mais. xam nga xam nga xam nga. toj pourquoi attendre bi nga xam ne ñu nag pratiquement ñu ngi nekk ci bayu yu yeneen élection est-ce que du du du du du thème de campagne du sujet de campagne c'est pas quelque chose bo xam dañ ko def.

mais tay, y am solo les élèves viennent nekkoon Médina 2 tay. mais nous continuons continuer Nous jàng ci parce que Médina 2 école ci Médina Nekul école ci les écoles Medina, Médina 1 ba Médina 4 élèves yi ngi fofu Médina 2 nous non wax mais bientôt dina c'est un projet un à venir. à non non pour bientôt. À court terme. Moyen terme à, à, court terme. À court terme C'est oui. en combien de mois C'est Ce sera en moins d'un an. Ok. Uh-huh. Bon, maintenant, euh, dans un mouvement, nous mm que je l'aime. Mm -hmm. Déjà, comment là, nous nous expliquer ce mouvement Bobo Là, moi, ça va mouvement bi. Mouvement bi, le quoi ça va Là, parce que taille, Medina, dafa dafa dafa jeunesse am dafa forte la jeunesse jeunesse médinoise dafa dafa dafa dafa am dafa am leur place dans la politique. oui dans la politique locale même. oui looloo tax pourquoi pas tay une jeunesse participative bo xamni tay day nek au côté du maire pour un wane bilan deux sensibiliser les jeunes et trois pourquoi pas tay jeunes yi ñu si bari ñu jël ay gal ñu ci bari tay ñu ngi dugg ci lo xam ne waruñu ci dugg mais c'est c'est c'est le moment tay nga gëna sensibiliser les jeunes war ñu ni mën ngeen toog si seen commune mën ngeen toog si seen localité liggéey fa jëriñ jëriñ seen localité par commencer par moi même man tey bien vrai que def naa ay stage fu nekk mais dama toog sama commune pour jëriñ sama commune te nu mu valable ci man noonu la valable pour tout jeune looloo tax nag après si la ñu waxtaanee ñu ne on va créer un mouvement un mouvement qui sera politique

fi nga ko teg foofu ci ci ci fi ñu war a teg leader ci xam-xam ak yooyu bu yet waaw waaw yoo xam nga xam nga xam nga lépp rek day am lu mu sabab waaw parce que tey li tax ñu ñu jël tur boobu sax ça a été purement mûri parce que moo tax même suñu même suñu même suñu cible sax dañ ciy jiital loolu mm-hmm. parce que un leader tey dafa war a incarner loolu parce que mënoo ni mënoo ni leader nga ba pare ñu lay gis si yenn yi

c'est sûr bon euh, euh, euh, bi fait un mouvement avec légui. mën nga une évaluation bu par rapport à ce que vous avez fait. au début créer on a été à à pour des séminaires de formation. oui avec le maire. oui pour sur le sur le leadership et la prise de parole en public. oui parce que nous si bëri suñu suñu nous suñu suñu membres yi sommes ay étudiants lañu ñii élèves Nous ok te ñu si bëri exprimer en public da leen doon xaw a Oui. Mais ces bah, types, types pratiquement, ce sont les étudiants et les enseignants. Oui, les, oui. Les, les, étudiants et les, élèves. élèves. Voilà, voilà. Mais est-ce que vous avez participé à l'efficience, à l'émergence des jeunes qui ont été nekk ci école yi di de wala nekk à l'université di jàng lan ngeen def ban kii ngeen def un xam am un plus value par rapport ak qui seen jàngin ngeen accompagner leen. waaw parfaitement parce que tey tey li tax li tax sax suñu mouvement bi ñu mu gaaw a am une une une adhérence bu bu bu forte. loolu moo tax parce que ñun dañoo teeloo dañoo nekk ci enseignement bi. dañoo am ay élèves yu ñuy encadré am ay étudiants yu ñuy encadré. léegi boo leen waxee le mouvement dañ ciy teel a adhéré. Mhm. te ci loolu lañu continuer parce que on donne on donne on donne pas mal de cours aux élèves gratuitement parfois ñu fekk un élève boo xam dafa am problème ñu fekk ko sa kër defal la ay cours. Après, vous accompagnez les jeunes. accompagner les jeunes surtout les élèves aussi accompagner les parce que tey Medina niveau il faut que nous relever ko son niveau d'enseignement que ça soit élémentaire secondaire moyen secondaire faut que nous relever ko. Mhm. te ñun jeunes yi pour man nous ñoo ko mën relever. Mhm. parce que yaay yi ak papa yi amatuñu jot tey Médina ñu si bari élèves yi. Mhm. wala étudiants d'habitude, d' parents yi jànguñu mais boo gisee ben sa moroomu jeune boo xam ne mën encadrer te xaarul dara si yow lu dul nga jàng ñun foofu lañ taxaw te tout le temps ñu ngi si moo tax moo tax suñu suñu suñu suñu on a une forte adhérence dans le mouvement est-ce mën naa am une une une idée de l'estimation du nombre seen membre nombre de membres yi ça ça tourne au combien de personnes ça tourne au autour de 200 personnes mais suñu objectif final mooy avant les élections ñu am 500 nouveaux jeunes pour réunir le, maire Bamba Vous êtes en campagne déjà Oui, on, est, déjà en campagne. parce commencé à nous promouvoir, mais il promulguer aussi le bilan mais, Mais il paraît que le maire ne sera pas candidat. Il y a des gens qui le disent. Il ne sera pas candidat. <laughs> C'est sûr Il est candidat à sa propre candidature. Il, te l'a dit C'est sûr. Il te l'a dit Il, n'a pas besoin de me le dire. Tu le sens Je le sais. Tu le penses Je le sais. Tu le sais Non, tey c'est parce que tey tey tey góor Bamou ba mu 2000 en 2007 dafa ni lan lañ le fameux slogan la génne góor gi dolluñu ñun tamit noonu rek la def Bamba dolluñu ça c'est le slogan de quelqu'un d'autre oui mais Bamba mais mais mais un bon slogan on peut l'utiliser partout tey Bamba dolluñu la ñu lañ soxla parce que tey Amna Fumu fu Medina, jële Médina teg ko fi te am na fu bëgg yóbbuwaat Médina mais kon Mais il y, a, y a des gens qui disent qu'un mauvais maire, on le change. Il le disent. Ils disent qu'il a, il a, changé parce qu'il n'est pas un bon maire. Un mauvais maire, sur quel plan Non, il y a des gens qui le disent. Non, moi, ce sont, ce sont il, a changé. Ce, sont les, dits, ce sont les Il a fait son temps. Il a fait son temps, non. Vous n'êtes pas d'accord je, je crois que. Il a une il doit passer la, il doit passer la main. Non, non. Vous n'êtes pas d'accord Non, non, je crois que Bamba Taï, il doit nekkat si, si, si, si encore deux mandats. Encore deux mandats Ah oui, ah oui. À l'heure où, où, les mandats sont en train d'être euh, normalisés, un nombre. mais <laughs> même deuxième mandat troisième mandat ça commence à ça commence à devenir vraiment loo xam ne beaucoup de gens ñi bëggatuñ ko dégg. mais alors, je, ne je ne convie. mais su fekkee am un mandat comme vous dites quand est-ce que vous allez il va passer la main pour que y ait une mën nga euh, à, à, à sa place. on n'a pas ou bien vous n'avez pas d'ambition si on a on a bien sûr on a des ambitions. vous êtes ambitieux mais bien sûr. vous voulez être maire. ah mais tey waaw ah, ah, waaw mais nag ah, mooy bàyyi ma wax nag mu ok d'accord xam nga tey xam nga tey bo bo bo amee un un maire bo xam il travaille avec les jeunes. oui on n'a pas besoin d'être maire pour liggéeyal ko tey nous ngi koy liggéeyal te on n'est pas maire. et nous participer au développement de la Médina te on n'est pas maire. Ça ne veut pas dire que, que tu n'es pas maire, que tu ne peux pas participer au développement de ta localité. tu es, le maire, tu le maire, c'est l'instant seulement. Mais tu en retour, il y a une jeunesse qui mais yow bi ngay bi politique am ambition. bien sûr C'est d'avoir... D'être d'être... d'être au sommet mm-hmm. C'est pour être au sommet il faut remplacer ce qui était là. Mhm. n'est-ce pas mhm. Quand il ne passe pas la main, comment vous pouvez vous non, non, il va passer la main. Mais, pour le moment, pour le moment, oui. pour le moment, on a encore besoin de lui. Parce que nous, si nous pour ça, nous les jeunes, chaque jour qui passe, nous nous Donc vous donnez, vous donnez, vous donnez raison à ceux qui disent que Macky Sall war na troisième mandat parce que les gens ont besoin de. non non ça ça ça ça c'est un autre débat parce que similaire. non non ça c'est un autre débat on ne peut pas vouloir son contraire. non non non parce que taille parce que taille si ça c'est valable l'autre doit être valable. non non taille taille les les mandats présidentiels. oui Avec les mandats dans les communes. oui ça fait deux. certes oui. oui certes oui mais euh. la tax deuxièmement la longévité qui pose problème. deuxièmement. oui oui allez troisième mandat. oui mais vous demee élection dañ gagné. fan nga ko parce que le peuple le peuple est fatigué. Donc, donc, nous Sénégal nous. mais vous donnez raison donc à ceux qui disent que Bamba doit dafa non mais Bamba il est à son premier mandat. Bamba il est à son premier mandat. Macky est à son deuxième mandat. mais dañ est à son deuxième mandat mais mais longévité dafa premier mandat mandat bu donc dafa yàgg les gens ne disent. Non, non c'est que c'est que bambar dafa téla nek parce que déjà conseil seulement. Non mais mandat après mandat après presque yépp moko doxal. Non non non, non, non, Mais il n'était pas maire quand même. Waaw. Yorul won titre bi mais mo yor attribut. Mais ben mandat maire la yor. OK. Donc il a falluaté mu nek à son deuxième mandat. Donc nañ ko baye mu falluat nek à son deuxième mandat. Parce que les gens disaient nañ baye pay mu def mu liggéey nañ baye mu def commencé na dara mu yagul ko donc yow lool ngay lool ngay lool ngay lool ngay réitérer wat quoi. Lool la réitérer. OK nañ ko baye mu defat deuxième mandat. Voilà. OK. Il donc yeen cette ambition moi da ngay c'est ça. c'est ça c'est ça on sera derrière lui on sera ses sentinelles et on sera ses jeunes. qui vont le réunir moi je ne comprends pas vous n'avez pas d'ambition en tant que jeune d'être au Dessiné bien sûr les ambitions les ambitions diffèrent. taille tey taille li am solo la localité. la Médina parce que une ambition Médina mon soutien, sut ambition. ok tu peux être un un jeune ambitieux mais Médina taille Médina tay mom mom mom moom moo yar Médina tay mom moo la yaatal. Médina tay mom moo la moom moo tax nga dem ba ba ba am ay ambition. tay medina tay mo nek au devant de la scène tey medina mo ñu intéressé. léegi nak lepp lu jëmal kanam medina mais su ambition personnelle dañ koy tegee à côté. jiital medina bi mom solo. ok léegi loo mën wax ci le la place de de la jeunesse. dans la politique. dans la politique locale locale. Mhm. surtout. Mhm. vous êtes bonne place ngeen occupé est-ce que am ngeen place bu baax boo xam ne leader jox ko est-ce que vous avez des des des des des responsabilités qu'on vous leen jox. xam nga mhm. xam nga dans les chaumières surtout yéen côté bi Bok xam nga xam nga xam nga pour te dire rek dans la commune plus de 60 des employés sont des jeunes. oui tey Bamba ba mu dafa promouvoir les jeunes parce que les jeunes ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko fal en 2014 les jeunes ñoom ñoo ko Oui que ça soit en 2021 ou en 2024, les jeunes n'ont pas fallu. Il a toujours été au devant. C'est ma conviction là. Ah, c'est ma conviction. C'est pas, c'est pas, mais c'est pas encore avéré. <laughs> On verra. Pas encore à l'heure. On verra. On verra. <laughs> on verra. Il décrit déjà son bilan. Son bilan, son bilan est très positif. Ah bon? Son bilan, tay, tay, tay, bamba limi def medina nekul lo xamni dañ koy dañ koy dañ koy inventé da ngay du diko gis. Bon légui sama doon jox une note. sur Une mhm. échelle de 0 à 20 qui magistère, qui bilan. Donc, au-dessus de la moyenne. Au-dessus de la moyenne. Les 4 qui restent pour avoir 20, qui manquent pour avoir 20, 4 yoy, restent pour avoir 20, 4 yoy, pour nous en 20. Le premier, le, le, le premier, ce serait encore travailler sur l'épanouissement des médinois. Oui. Parce que taille, parce que Avec ce cours feu on a métier sur le plan sur le plan social. oui nous siy ligué nous ngi ligué mais c'est encore à faire. Oui, mais c'est encore à faire. oui mon allah mon na parce que tout le temps du 1er janvier au 31 décembre Bamba est avec la population. mais comme nga social mon du tout le temps il faut parfaire tout le temps il faut parfaire faire mais mais te fait sa dafa dama fay oui parce que son concurrent qui, qui c'est son concurrent Son concurrent, c'est qui bine, bine, bine, Il a beaucoup de concurrents Lequel est son, concurrent son, son, son, son concurrent, il est, il est candidat à la mairie de la Médina. Il y en a plusieurs qui l'ont dit Dafa am lu mu wax. kii moi je veux savoir non su ma non su ma waxee di nga xam. ok allez-y. mais yo, dafa am lu mu wax mu ne mu ne mu ne sur le plan social. oui moom waruñu ko demander dara parce que yorogu responsabilité est-ce qu'il n'a pas raison mais je mais makay il n'a pas raison mais mais, mais bama yegal ki yalla mais le fomé mais le fomé non merci mais mais kan moko ko jox Messi, tu dois jouer avec tout d'un coup Messi. Faut jouer. Mais bah, exactement, la question. Ok, allez. Parce que mon daron, mais daron, daron, dengan nyou, j'ai 300 000, nyou j'ai 500 000, nyou j'ai 1 million, nyou j'ai 2 millions ba ñu ah, koy woowee Messi loolu moo indi Messi bi waaw loolu moo loolu moo indi Messi bi léegi tey mu bëgg ne déedéet c'est lequel des bëgg ne déedéet mooy c'est lequel des Messi c'est le Messi joueur et le Messi ou le Messi avec le Messi le Messi la Messi le fameux Messi de la Medina. waaw non dama bëgg xam xam nga Messi y a deux en français non non non non bon c'est Messi le fameux Messi de la Medina. non je demande non je parle pas de Messi footballeur quand même ban Messi Messi le Messi politique de la Medina. d'accord moom tey ba mu ñëwee tur boobu noonu moom moko incarné. ok mënul ñëw nak ba en retour mu ne yor mo benn responsable. nañ ma dénk pour mo mën def social. déedéet il a raison il n'a pas de responsabilité. li mu def dafa def son progrès mais moom moko don incarné. c'est parce que les social moom mo déedéet incarné que je suis pour les Médinois daan joxé des sommes spectaculaires yo xamni ni duñu xam fu mu

il est essoufflé, c'est ça. Il, n'a plus, plus le moyen de, de sa politique. Parce que, parce que taille parce que taille parce que taille nous, nous taxaw. Oui. Yow ñu dem ba lay woyé Messi. Mhm. Lu tax ñu lay woyé Messi, c'est à cause de tes dotations. Mhm. Yow nga jéggi jéggi ñew ni non sur le plan social mënatuma def lu sori parce que yoruma responsabilité. Mais yoroo responsabilité nga bàyyi ba légui diko wax ni man yoro yoratuma responsable nañ ma denk pour ma pour ma pour ma dimbali les Médinois ça pose problème. est-ce à dire que moom amatul euh, moyen ou politique ou la pour ah, peut-être il prépare sa campagne. mais on va l'attendre sur le terrain. Ah, vous êtes forcément euh, euh, déterminé là. on l'attend sur le terrain. sur le terrain. maintenant nous allons un peu sur on va expliquer de de la jeunesse. Mm-hmm. face à la Covid la jeunesse médinoise. Mm-hmm nan nga mëna nan nga la place qu'occupe la jeunesse la responsabilité de la jeunesse face à la Covid. sensibilisation sensibilisation tay tay jeunes surtout surtout les jeunes leaders tout le temps ñu ñu ci cogni di sensibiliser parce que tay dañu dañu interdit les les rassemblements les regroupements on fait pas deux jeunes dem sensibiliser joxe ay masque. pour masque. Pour communication bi la ñu nous insister té ñu ngi tout le temps mom essayer Covid bi communication rek nga mën def communiquer avec les gens ñu respecter les mesures barrières communiquer avec les gens xam ni maladie bi mu fi. Hmm. parce que il faut que les sénégalais sachent que maladie bi ça existe tay bo déggee yenn frange de la population est-ce que maladie bi existe na sax fekk ñu ngi am ay ay décès yu dul non mais. ça fait peur ça fait peur. ok tay lañ cette maladie existe. Ah, revenons à une situation où xamné dafa alarmé wu fan yi mhm. le terrain de l'école Médine. ñu mhm. koy teere Djaraf. nga dégg nga subitation yi les gens ñi ngi même le contrat le contrat est-ce que vous gis nga en tant que jeune leader médinois. jëlee fii gis nga ko. Mhm. mais les gens ñu ngi koy réclamer mais expliquer a expliquer loolu ñeneen gisewuñu ko. Eh, réclamer par rapport à quoi contrat bi nañ leen ko woon. xam nga nga contrat bi ñi signé sax li ñuy wax nañ signé Nous lañ ko signé baaxul en tout cas ñi en un mot ñi ngi le le le contrat sur quel plan xam nga tay xam nga tay ñu bëri ñu bëri ñu ngi ñu ñu ngi wu di wax di wax. di wax di wax tay le contrat. bañ ko signé c'est la commune qui l'a signé La commune bi du commune bi du def dara sans délibération du def dara sans son conseil municipal. conseil municipal bi moo ko signé y a des conseils municipaux ñu décret affaire bi tamit. waaw mais tey. l'essentiel mooy démocratie lan la ñu ne sax gisuñu ko. tey non tey démocratie c'est la majorité. oui tey démocrate c'est la majorité la majorité des conseils municipaux ont voté ce contrat Ce contrat c'est clair net et limpide mu ngi ci réseaux sociaux yi publier nañ ko suñu réseaux sociaux Nous bëri ñu ngi naan ay société bi comment nan la ñu signer le contrat à une date ba pare créer la société après. mais tey mais loolu ça existe. on peut on peut ñun ngi wax loolu est-ce que loolu mais mais mais tey mais mais ñuy wax loolu dañoo xamul. tey tu peux avoir ta société tey tu peux avoir ta société. Oui nous dérouler ay activités Fait que ses papiers aux chambres de commerce papiers du mais tu continues tes activités non non non expliquer. tu crées un conseil pour les jeunes moi am ben représentant de la de de la jeunesse. cacophonie là quoi. cacophonie là, problème jeunesse tu communiques commune on régler parce que les chemins sont ici commune heureusement que le maire Bamba Fall l'a compris ba muy jël ay jeunes yu bëri mais tey boo ñëwoon tey ces dotations yi ngay jox ces agences là nga jox ko les communes bu la neexee sax ñu dugal ko dans une nouvelle rubrique budgétaire nga contrôler ko mais mais mais communes yi boobaa dinañu am pouvoir de de de d' embauche. dinañ mën a euh, euh, euh, for former les jeunes ba pare embaucher leen te boobaa dinañ mën a participer au chômage des jeunes. c'est bon l' émission malheureusement c'est c'est mm pas ce que vous dites. Mhm. Mhm. Et comme nous sommes régis par un temps, un temps mhm. euh, ce dernier mot là. waaw ce dernier mot je di remercier les Médinois rek di remercier les Médinois Dak parce que quoi qu'on puisse dire tey jeunes yi soxla nañu dire. parce que c'est la Médina qui gagne tout le temps ngeen di faire la faire la promotion des jeunes pour nous donner a promulguer ñoom lu ba dina tax jeunes yi si conscients

waaw merci parce que soxla woon nañ ko euh, merci beaucoup. <laughs> ok ok merci beaucoup c'est bon. Euh, yéen ñi ngeen doon suivre gis ngeen suñu émission bi vraiment mu amoon maamoon benn jeune boo xam ne vraiment da ngay gis ne jeune la mais un jeune très prometteur comme on dit voilà boo xam ne da ngay doog doog dellu nga xam ne am na lu nekk ci xel bi te loolu la ñu soxla ñu dañu bëgg so jeunes yoo xam vraiment des jeunes très très très prometteurs très très conséquent et surtout yo faut dañuy dégager ay valeurs c'est important limay toujours c'est normal mën nañu bok jeune yi politiques. ngeen gis-gisu politique c'est normal limay rek euh rek mo bi polo ku nek am am droit ce qu'il faut surtout éviter c'est les injures ce qu'il faut surtout éviter c'est les batailles ce qu'il faut surtout éviter c'est les calomnies l'essentiel ku nek mën nga défendre sa idée te du ngeen xex du ngeen xulo du ngeen c'est normal ce qui vous lie encore une fois moo ëpp li délié parce que là maintenant moo leen lié donc xëy na yéen ñëpp ku nekk def dafa c'est pour le meilleur pour un meilleur pour la Médina n'empêche am nga droit euh, euh, euh, wax sa xalaat am nga droit faire la promotion de ton leader sans pourtant nga yegg ci ay encore une fois bala ñuy terminer maa ngi leen di wax ne mbas mi nous respecter les distanciations sociales nous porter takk masque na c'est important parce que mi de que fi euh, rendez-vous prochainement avec un invité ci sunu site Dak Medina. site bi encore une fois ku parce que site bi lu am de kese kese lañ